conseil des ministres euh, 9 décembre passé la ñu ne dañuy initier benn projet de loi pour militariser école polytechnique prétexte bi ñu ne ay grève la te grève boobu ça ne concerne pas les enseignants ay élèves ñoo def grève léegi ñu convaincre euh, autorités yi en l'absence te ministre bi ministre des forces euh, ministre de l'enseignement supérieur nekku fa woon il était absent gis nga loolu mooy problème mu loyauté déjà nekku fa ñuy ñëw jël décision ne parce que élèves yaa ngi grève cinq jours seulement il faut ñu militariser loolu vraiment ñun ñu ne ñun suñuy statut enseignant du supérieur mënuñu développé wu ci biir école militaire mënul nekk dans le passé loolu amoon na mais enseignants amuñu woon statut ñu xeex ba inspection générale d'État ñëw inspection générale d'État tranché ne militaires yi nañu retiré wu document yaa ngi fii militaires yi retiré wu ñun ñu nekk ci jàmm avec un statut maintenant parce que rattaché à l'université école 92 la comme la tambali di dugg enseignement supérieur ñu am statut léegi ñu ñëwaat ne il faut retourner à la situation avant 92 xanaa le Sénégal avance Sénégal day avancé émergence mooy avancement Sénégal nan la ñu mënee jóg du jour au lendemain sans euh, consulter les enseignants wax ne léegi dañuy delluwaat 92 avant 92. 73 ba léegi loolu mënul nekk du ñu ko nangu tey ñu ko nangu ëllëg suñu ko buggee def nañu ko def mais enseignants yi wax nañu ne jour bu muy am ñoom ñëpp dinañu uti fu ñuy jàngale enseignement université université yaa ngi nii ñu ngi koy créer personnel administratif dinañu jàng dinañ dem aussi ñu ñoom ñu uti seeni enseignants ñi ko def dinañu uti seen enseignant ñu ñëw jàngale seen administratif personnel yi ñu ñëw def seen liggéey mais en tout cas bu ñu compter ci ci ñun pour def loolu waaw fu mu nekk nii ñu commencé nañu ay journée morte te ñu wax ne on avertit que lii signal la dañ koy signale c'est un signal qu'on émet en direction ci ñu ko def ministre yooyu xam nañu ko anciens yi xam nañu leen fii la ñu nekkoon ñu daw dem uti leneen ñu bàyyi ñu fii parce que man tam ancien la jàng naa fii maa ngi jàngale fii donc ñun dañu ne loi bi comme que dañ ko bëgg a forcer suñ ko forcer ñu wax leen ne année bii dina leer ñoom ñoo ko yore suñu ko retiré année bi normal suñ ko doon retiré li ñu commencé li ñu tàmbali nii dina continuer rek voilà seeni Tamba école polytechnique